asalaamaaleykum amee internet Sunugal 24 amati nañ mbégte saa su nekk di ànd ak yéen ci seen biir xibaaru bés bi la li gën a fës ci ponk yi bokk na ci Guy Marius Sagna mi daal di nar bokk ci élection législative yi ñu jëm loole nag mi ngi ko daal di xamal ci ab texte boo xamante ni rek daat nañu koy eh, publier lu yee soxal enquête bu ñu amal ci faatub Astu sox na mi la jamono juñ toll nag lu toll ci juróom benn agent wu hôpital Amadou Sakhir Mbaye eh, bu luga daat nañ leen di déféré ña nga woon sax ca tribunal bu grande instance eh, daal di fay nemmeeku mbooloo mu takkoo takku ñu gën ci ràññee ñi nga xamante rek mooy seen ay collègues si lay jàlloo ak ay complices yi ñu tegoon ci cocaïne lim ba takku woon loolu toll ci 750 kilogrammes jamono juñ toll nii nag enquête ba daal nañu koy rek tëj dossier ba daal nañu koy jébbal procureur de la république ci 2STV la ñuy dem ginnaaw Astou Dione mi mu doon xamle ni rek dañu ko daal di diffamé loolee nag mu doon jot ay menaces am sax ñi ko doon diffamé loolee nag ñu ci kii di Maty Trois Pommes waaye loolee nag kii di Maty Trois Pommes daal na ci yéy lu mu xam la rek ginnaaw ba mu ko daal di fësale ci page Facebook am di xam le ni rek mbir mi bi mu koy wax tuddul kenn waaye ma ngay daal rek insister ci li mu wax ni rek dëgg la ba tax na sax ma ngay xam le ni rek moom le journaliste bi taxu koo jóg la ko tax a jóg rek mooy euh, coalition parti askan bi nga xamante ni rek doon daal ne loolee moo ko ñor te dina ko daal di xeex amee internet Sunugal 24 xibaar yi dañu koy daal di jeexale ak lu soxal mbirum people njaay mu TFM mu ñu gënoon koo xam uh, ci njaay Kouthia ci DJ Yves ak ñoom mi la nag ñi doon xam ne ni kii di njaay mi la ñu gën koo xam ci njaay Kouthia dafa daal di tawat looloo waral nag jamono juñ toll nii kenn gisatu ko ci télé yi waaye kii di Mbaye nag daal na ci def ay révélation yu doy waar daan ko gën a yaatoo ci biir xibaar yi amee internet Sunugal 24 uh, ngeen taaxi lu bàkk bi jàll ñu gën leen a yaatal yooyu lay xibaar yeesa soxal ex capitaine Touré ginnaaw ba ñu daal rek dakkale liggéey ba mu doon amal ci IAM tolloole nag euh, kii di ex capitaine Touré doon ci dut baaxam tuuma groupe Sénégal kii di directeur général bu IAM di Girassi moom it di xam ne ni rek pression bi mu doon jot ci autorité sénégalaise yi rek moo daal di waral mu daal di dakkal liggéey bi nga xamante ni rek sekkoon na ko ak Seydina Omar Touré moom la waaye jamono juñ toll nii nag ñu ngi xibaar di kii di capitaine Touré ma nga ca locaux yu ville de Dakar yi loole nag ñi ngay xam ne ni kii di maire bii di Barthélémy Dias daat na koy rek tabb li nga xamante nii rek mooy conseiller spécial en matière de sécuritaire loolee nag ñu ko daal di def ni ki tey euh, jile. Guy Marius Sagna ma ngay xam ne nii rek fësal naa dëggal boppam euh, ci élection législative ñu jëm nag mi ngi ko daal di xamle ci benn test boo xamante ni rek euh, fësal nañu ko ba tax na rek ma ngay xam ne ni citoyen sénégalais yi membre des collectifs yi nga xamante ni rek victime lañu ci mbirum foncier maanaam ñu nga xamante ni dañoo daal di rek nangu seen ay suuf ak sax ñi nga xamante nii rek dañ leen a dàq ci bërëb yi ñuy liggéeyee te tegu ñu ko ci euh, benn yoon ak ñi képp koo xamante nii rek euh, da ngay dund mbirum injustice fii ci Sénégal te nga yàggoon a ànd ak moom doon xeex lu ni mel moom le nag euh, ma ngay xamle ni rek ginnaaw bi nga xamante ni ñenn ci sympathisants yi ak sax membre yu yeewu askan wi ñu doon sàkku rek ngir mu daal di dëggal boppam ci élection législative yi ñu jëm maanaam mu daal di rek def candidature am loolee nag ma ngay xamle ni daal dina koy nangu dina daal rek dëggal boppam ci élection ñu jëm a am ci 31 a 2022 bile euh, teg ci di xamle ni rek lu ëpp ñaar fukki at a ngi nii ñuy xeexal askan wi mu ne loolee nag jot na tey jile ñu daal koy yóbbu ci assemblée nationale ngir rek xeex bi daal di a njong waaye nag bokk na ci li mu bëgg a xeex bu yeggee ci assemblée nationale mooy rek ni suuf si daal di des ci loxoy baykat yi ak sax ñi nga xamante ni rek dañuy yor ñu daal rek respecté ak ak yelleef liggéeykat yi te it fësee na xeex lépp loo xamante dina def kim kàttanam ba nga li nga xamante ni rek mooy lu soxol santé ak éducation ñu gën ko ñongal tey te ñi nga xamante ni rek ñooy nouveau bachelier yi ñu daal di leen orienté ci université publique yi ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni rek kii di Guy Marius Sagna daal dina koy souligner teg ci di xam le ni rek ma ngay sàkku ci askanub Sénégal ñu daal di koy rek voter ndax dina fas yéene demee ci liste bi di coalition Yewwi Askan Wi lu yees soxol enquête bi ñu doon amal ci fatub astu soxna mile lu toll ci juróom benn euh, agent wu hôpital Amadou Sakhine Mbaye bu Louga daat nañ leen rek déféré niki tey ji la au parquet ña nga woon ca tribunal bu grande instance bu Louga ñoom nag daan nañ fay nemmeeku mbooloo bu takko takk rawatina sax ñi nga xamante ni rek ñooy seen ay collègues anam bi nga xamante ni moom la astu soxna daal di faatoo rek loolee dafa daal di nakkaru nag askanu lëmb ba tax na sax loola war a kii di ministre de la santé et l'action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr mu doon sàkku rek ñu leeral boobu lay dossier ci fàttali kii di président Macky Sall daal jot sax limogé ki nga xamante ni rek moo nekkoon directeur boobu lay hôpital Sileye Diallo ak ay complice am yi ñu tegoon loxo ci mbirum cocaïne bu takkoo takko lim ba sax daal di tolloon ci kilo kilogrammes suñu sukkandikoo ci les échos moom mi di joxe boobu lay xibaar kii di doyen des di Omar Diallo moom mi la nag daal di nay rek noppi ci boobu lay dossier ba daal di koy rek jébbal procureur de la république waaye nag kii di procureur daal di nay rek kii rek non liy soxna si ñu naan Oumy Diallo ña ca des nag dinañ leen yóbbu fi nga xamante ni rek mooy chambre criminelle ngir rek daal di leen di jugé ci mbir moomu 2019 la douaneub sénégalaise bi rek daal di tekk loxo cocaïne bu takkoo takku comme li ma ko waxee woon sànq rek lim ba toll ci kilogrammes ñoom ñi leen nag ñu ngi leen tege woon loxo ci large Dakar bi maanaam ci euh, géej gi loolee nag ñu ngi ko doon jenc rek ci ay oto yu bees tàq ginnaaw loolee nag ñoom ñi leen ñu ngi daal leen di tegee loxo ci benn bateau bu daal di jóge woon rek fi nga xamante ni mooy Brésil ñoom ñi leen nag ñu ngi leen doon toppee association de malfaiteurs blanchiment de capitaux trafic international de entente et complicité ginnaaw astu jonn kàddu ya mu yëkkati woon na jëmale ko ci Guy Marius Sagna boobaa léegi nag muy xam le ni rek noppiwul benn yoon doon jot li nga xamante ni mooy ay menaces am sax ñi ko doon di diffamé ci loole nag ñu ci doon duta baaraamu tuuma kii di Maty Trois Pommes waaye loole nag kii di Maty Trois Pommes ma ngay xam le rek moom mi le ah, ba wax wax ji tuddul benn tur ba tax na sax moom mi le daal dinay rek xam le ni mbir mi li mu wax dëgg la am na journaliste boo xamante ni rek ah, partisan wu Pastef moo ko daal di ëmbal ba muy daal di rek yàq ba loolee nag ma ngay xam ne ni tuddul benn tur waaye nag ma ngay daal di xam ne ni rek journaliste boobu sax ñoru ko moom mi la ma Maty trois pommes ma li ko ñor leen rek la mooy ni nga xamante ni rek mooy waa Pastef ni ñu daal di duggee rek ci presse bi mu ne loolee nag dina ko xeex ndax nag jàpp na ni ñu di waa Pastef dañuy utiliser waa presse bi rek di diffamer ak sax di yàq lu leen neex ñi nga xamante ni rek ñoo farewut ak ñoom mu ne loolee nag dina ko xeex ba li nga xamante ni rek mooy presse bi daal di libre ku nekk mën a def sa liggéey na mu 24 xibaar yu bés bi dañu koy jeexalee ak lu soxon mbirum uh, people Ndiaye mu TFM ñu gën koo a ngi nii kenn gisu ko ci écran yi loolee nag ñu ngi xam ne ni rek wopp bu metti moo ko daal di tëral suñu sukkandikoo ci DJ Yves ak Mbaye Mbile kii di mbay sax ma ngay daal di def ay révélation yu doy waar di xam ne ni rek kii di njaay dafa daal di feebar feebar bu metti waaye loolee nag ba mu am kenn ci waa TFM woowu ko téléphone wala sax nga seeti ko waaye ba mu noppee rek kii di DJ Yves daal nay jël kàddu di xam ne ni rek Ndiaye sax bugg